jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi jàkkaarloo waat ak ñun di ñu seetaan ñoo ngi am mbégte di ànd ak yéen fii ci jataay bi nga xamante ne bii eh, sëriñ Amsatou mu Cheikh Abdoul Ahad dana ko yëkkati mu jëm ci wàllu dëkk bi ak li ci biir dëkk bi te lépp di eh, xotti war may dëkk bi di Touba eh, loolu ku ne xam ne ne taxawaay bi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad amoon na ko ci mu ci wàllu sàmm. Euh, li nga xam ne mooy ndono li waaye itam defaraat jikko yi nga xamante ne bii euh, moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne bi ko yàlla yónni ngir mu defaraat mottaliwaat jikko yi rek moo woon te ku ne xam ne dëkk bi fi ñu toll jikko yàqu na waaye itam nag jëmm itam lu ci bari yàqu na te dafa mel ne ñi nga xam ne ñoom lañ koy sàmmaloo itam xamuñu li tax ñu andi leen ci dëkk bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu bokk jullit yëpp di bokk taalibe rawat nag bokki murid yi dëkki Touba xanaa di wax wax ju gàtt rek te tënk ko dafa am jamono yi dëkk bi am po dafay bari woon lu mel ni tëgg ak fecc ak kar ak naan ak yu niroog ñoom ba am jëmmi jamono benn julli ajjuma boo xam ni sëñ Abdou Khadir xamul lu muy julli ndaxum tëgg ba mu noppee waxtaan ceeg sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Lahad yëkkati kàddam daal di wax ak njabootu sëñ Tuubaa gépp booba ñi fi nekk sëñ Saliou sëñ Abdou Khadir sëñ Sohaybu sëñ Mourtala ak moom ñoo fi nekk mu woo itam sëñ Mbàkke Madina nga xam ne moo koon wax ci ak ñoom doo ko yëkkati kàddoom tere la muy tere muy dox ba nëgëni loola moom jeexoon na fi tàkk bu jeexul tam wàññi ko woon na ndax euh, lu yàlla tere woon de taxul nit ñi ba ko yonent bi tere ko taxul nit ñi sëñ Tuubaa tere taxul nit ñi sëñ Tuubaa tere ko nit ñi di ko nëbb mu ne kon gannaaw ñee na ko waaye ñu ngi koy nëbb rek sant naa léegi nag dañoo weesu nëbb dañ koo fisal léegi ba nekkoon lu ko rawaat am ci dëkk bi te loolu nag day xotti arma sëñ Abdou Lahad nag ba mu doole daf koo jox procureur Jurbel bi kuñ masaa jàpp fii buñ la yóbboo boobu gendarmerie fi nekk gendarmerie dañu la fay téye ñetti fan yóbbu leen njëriñam bu fekkee da màndi ñu tëj li 45 jours booy gën ñëwaat la bu nel boo dem tox ñu tëj la fukki fan wala juróom benn fan nga fay 3000 ñu doog laa bàyyi tëgg moom booba kenn defatu ko daa tegoon ci ci rond-point bi ay nit ñoo xam ñooy saytu lool ba mujj mu doog indi andi gendarmerie ba muy andi gendarmerie tam Abdou Diouf la ci waxtaanal bëggoon a andi police Abdou Diouf ne ko police day yàqu dëkk indi gendarmerie gendarmerie nag jàngal nañ leen yar nañ leen xam nañ fa ñu war a dafa la ñuy yem police nag ñoo xamul dara yaree deku réew xamadi ne ci dëkk bii nag di xotti ormay satiri sëriñ Tuubaa yi daaw ci réew ci ci ci ci ci ci couvre-feu bi jàkka dem nañu fekk fa dóor fa ay nit ba gaañ leen loolu police ko fi def di jàpp ay nit di dugal ci maali oto di leen rey kon polis day yàq dëkk loolee waxoon Abdou Diouf waxoon wér na bi ñu leen fi indee itam dañuy fi indi spécial tere la bon dañ leen fi indee waaye indee wuñ leen fi nag toroxal nit ñi te ñoo dàq toroxal nit ñi ci àdduna kenn yéesu coobaan mii fi nekk wax na wax joo xam ne dara jubu ki dara du ci dëgg te dara wéy ci ndaw la nag loo xam ne su fekkee ay supérieur am ñoo ko digal lañ ko def ndax ndaw sacrifié nañ ko ndax laal na foo xam ne aude su faa laal dëkku sëñ Tuubaa bi bu dee murid da cee war a maan bu dul murid yoon wuru cee nekk ba mu ciy waxee naka sudul noonu la mu wax tegu ko fenn te dara du ci dëgg na yem ci liggéeyam fii liñ leen fenne nun ñëpp xam nañ ko carte gi mi ngi ci dëkk bi sàngara si mi ngi ci dëkk bi tox mi ngi ci dëkk bi te ñoo xam nañ fa mu ne fa ñuy wax buntu Pikine ci yoon Daaru Musti ña nga fa demuñu fa attaqué leen mbaar ya ña fa bari fa yu bëgg dee te xam nañ ko demuñu fa attaqué corniche bii ci wetu jàkk suñu Cheikh Saliou ña nga fa kër soxna Ami dem gi Cheikh Khadim mu ña nga fa marché bii ña ngi fi gaar mu ndaw ña nga fi te am na ku ni ma te wax ju wér la nee na ñu ngi daan toxe ci daari kaami ci ci ci ci jullikaayu et bi ak pencum sañ fa lañ daan toxe bi fi làmp yi nekkee ñu leer léegi defuñ ko ñu ngi koy defee diggante kër sëñ Touba ak kër sëñ Abdou Lahad nag boo nu porte boo nu jàppee boo nu boo nu kalaamee ak police police dañuy woo buñ leen fa fekk walla bis sàngam dañ fa ñëw buñ leen fekk wala buñ leen fekkee na ngeen daw te ni boo ñu jàppee ba yóbbuñu itam booy jam ñu ñu ñu bàyyi ndax suñ soxlaa téléphone bu seer nuñ lay woo ñu wutal leen ko suñ soxlaa téeméer ju ñu ko jox leen ko ñoo ñoom ànd ay jubut lañ lii nag nga xam ne sëñ bi da koy tere te lu luy mën a nit wama nit yóbbu ko sawara léegi lool kon ku ne war na koo bañ waaye ñoom li ñuy tere nit a ko tere oto yi ne ci dëkk bii di ay rib yu ci ñoo ko moom kër yu bari ñoo ko moom te dëkk bi leen ko may football kenn terewu ko loi terewu ko ci lañu wax ñoom waaye sëñ bee koy tere dëkk bii di Touba parité fa ne ñu ngi ko def ci àdduna bi parité amul Touba lu tax kàddu sëñ bi maire yi bi ñu koy wote maire yëpp dañu ko wote Touba wote wuñ ko ndax la kàddu sëñ bi li yàlla may sëñ bi Touba nag ba noppi nekk nekk nekk nekk titre foncier bi li mbooloo mi bëgg kàddu sëñ bi rek mooy mooy kàddu ndax mba mbooloo mi kàddu sëñ bi lañu dëgg moo tax seen luwa kàddu sëñ bi kon mooy luwa luwa mooy lu mbooloo mi tënk ànd loolu mooy luwa ci ñoom mu ne nag sunu mooy kàddu sëñ bi su jegee ñëw fii nag bëgg bëgg a suufal kàddu sëñ bi indi kàddu tubaab yi nga xam ne ñoo ko fa teg te jànguñu xamuñu gëmuñu yàlla te yàlla ne ko teewul ci li yàlla alxuraan ab naafeq nga ab kàccoon nga ab saay-saay nga kon ñoom ay kàccoon ay saay-saay yëruwuñ jànguñu bu dee ndaw nag sacrifié ñu ko buy wax na wax lu xam te xam fa war yem du dee ci dëkk bi am fi teraanga am fi ñeenti at lu ne mu am ko te amu ko woon. bëgg a taxaw fii nag di yar waa dëkk bi te yëru leen ci alxuraan yëru leen ci diine ba muy wax ci diine xamul lu diine tere xamul lu diine bañ na yem fam yi nag moom mënta tee ba mu ndax euh, ñoom état nañ continuer lii nag xilaaf ak sëñ Tuubaa la ba mu mel ne moom dong lañ ko xeex moo lañ ko tus ña ko doon xeex nag ñoo moo leen gémm ñoom policiers yi ndax lu sëñ bañ ñu ngi def ci dëkk bi bëgg a sobentel kàddu ko sëñ Muntaxa bëgg a sobent kàddu ko sañ sëñ Tuubaa te nekk ci dëkkub sëñ Tuubaa loolu dëgg du yoon ministre de l'Intérieur barki démb téléphone naa ko jotuma ma bàyyil commissaire tontoo ko ma toog nañ ñett wax ci lu mel nii même président toog nañu wax ci kon te ñu xawuñ xam nañ li ñuy def nañ rab ci kudd ñu yoof leen ci gayet mooy li am solo wasalaam